ci loxo euh, sëñ bi. Hmm. sëñ euh, Cheikh Mbacké tegal ma ko ci loxo donc Serigne Moustapha Massamba donc di ziar ci tàmbali euh, xalif général hmm. Serigne Salim Mbacké donc di ziar aussi donc xalifa donc famille bi hmm. ah, donc pour ngeen ziaral ma famille bi yëpp tam donc vraiment tey réunion bi réunion CDD la ñu wax comité départemental de développement boo xam ne lu ko tey lu ñu réunir mooy ñu jéem a euh, xool point par point depuis ci affaire kaaraange. dem ci lépp loo xam ne daal pour màggal bi. mun a dox muy ndox. muy courant yëpp. donc fan lañ ci toll. ak fan la ñu war a jublu pour que màggal màggal bi mu nekk màggal bu mucc ayib. donc loolu moo doon réunion tey bi. donc ñu toog fii tey ñun. donc euh, autorité administrative autorité locale mooy euh, mairie. donc euh, commune euh, de Touba Mosquée ak chef de service yëpp yu toog fii tey ñu ànd ak famille bi donc euh, tey Serigne Cheikh moo fi nekk donc ñu bokk xalaat donc pour tënk ah bu ma ko tënkee daal mooy tey lu ñu waxtaane fii mooy alhamdulilah alhamdulilah fu ñu fu ñu toll daal am na lu des naam waaye daal dafa mel ni donc lu ci des bëreetul donc te incha allah yaakaar nañ ne dina dem donc cérémonie bi nag xam naa moom peut-être sëriñ bi dina ci dellu si. donc ñun en tout cas nuñ ko bindoo mu bindoo. ñun dafa gën a yomb sax ci ñun. ndax da ngeen bind kayit jébbal ñu. donc muy document boo xam ne. non seulement dañ ci tënku. pour mën a liggéey beneen bi mooy. xam ngeen ci administration toujours dañuy ubbi ay dossiers. donc keneen bu fi ñëwoon tam bu ñu ko rek. donc dafay am déjà lu ñuy wax benn base de données. donc gën yomb. donc euh, ñun mu am ñetti affaire boo xam ne dañ ko ci jàpp benn bi mooy. cérémonie bu ci boppam cérémonie officielle bi. Hmm. muy am donc ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Chaabaan. Hmm. donc euh, mu muy tombe ci ñeenti fan ñeenti fan mois de juin ci weeru tubaab donc euh, si la si laay tubaab bi donc cérémonie officielle bi donc euh, muy tàmbali ci à partir de cinq heures ci ngoon hmm. muy wax dix-sept heures waaye balaa boobu dana am ci ñaari fan mois de juin dana am conférence bu sëti donc boo xam ne ñoom dañ ko war a def surtout Serigne Massamba Mbacké donc euh, donc thème ren bi comme ni ñu ko waxee mooy donc quelle référence pour un disciple exemplaire maanaam taalibe boo xam ne vraiment bu exemplaire donc moom donc lan moo nekk roy roy roy waayam defe naa noonu la donc vraiment tey mun nañu wax alhamdulilah maanaam waxtaan bi maanaam dafa mel ni dafa àla donc euh, ñu bugg daal vraiment Euh, sakku ñaan donc euh, ñu ñaan donc lu ñu fi sumb daal donc ñu am ci lu raw sax suñu njort ñun ñëpp donc euh, mu ngi nii di remercier ñëpp donc wasalaam jërëjëf jërëjëf auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim noo ngi lay dellu nuyuwaat waaye noo ngi lay sant itam di sant mboolem chef de service di sant sous-préfet suñ chef de service yi fi nekk yëpp ci yitte ak yéeg ngeen am ci bistu bisu na Massamba te kenn ku ne ci yenn manifesté ko ba mu leer ne am nañ ci pësteef am ci yéen loolu noo leen ci gërëm ci turu sëriñ bi di leen xamal ne àndin bi rafet na lool tubaarka yàlla na ko yàlla gën a euh, gën a yàggal te li ñu fi diggee diggee woon ci CRD ba wóor nañu ne mën naa mat sëkk ndax li ci des bariwul loo xam ne bu ñu doon seet presque quatre-vingt-dix pour cent yi dem na dix pour cent mu des ci lii du dara loo xam ne mën naa àgg tey ba suba kon loolu wax dëgg def ngeen la le maximum yal na yàlla fay leen. sëriñ mi ngi leen di gërëm bu baax mi ngi leen sant bu baax ah, di xam leen lii mooy dëkkin wu rafet mooy àndin wu rafet autorité administrative ak ñi citoyen yi mu yilif nii lañ war a doxe doo doomuy doxin wu rafet loolu peut ñu ngi sant bu baax di la ci remercier bu baax di sant itam surtout gendarmerie ak police ci sécurité bi niñ ko xamee ñoom dañ ko xam-xamin wu rafet woo xam ne ni ko commanda waxe léegi ah, moo moo mooy li am solo xam nañu màggal gi xam nañ ni ñuy doxee ak ñoom ni ñuy liggéey muy liggéey bu boo xam ne bu parfait la tubaarka la loolu ñu ngi leen ciy gërëm bu baax donte liggéey bi matagul sax waaye nag xam gi ak yéene ji ak pësteef bi xamal nañu ne lépp mën naa mat incha allah kon loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di sant nag mboolem service yépp itam nag ci seen taxawaay ak seen doxe di sant presse bi ni ma ko doon waxee surtout bi ñu gën a ñoo ñu ngi leen di sant bu baax ndax am nañu yéene am yëg ci màggalu Sëriñ Massamba fu ñu leen wooye ñoom ñëpp ñu bàyyi la ñu jàppoon ñoom ñëw fekke si ko muy muy muy muy muy muy muy muy muy presse bi nga xam ne dañuy dañuy dañuy filmer ak ñi nga xam ne dañuy bind ak ñi nga xam ne dañuy wax yépp ak ak ak suite internet yi fa tabarakallahu seen tax taxawaay yépp rafet na yàlla na yàlla fay leen ci daraja lislaam ni ko bëggee woon amee nañ ko noonu may santit comité d'organisation bi nga xam ne xëy na maa leen jiite waaye kenn ku ci ne am nga ca responsabilité bopp boo xam ne loo war a wax wax nga ko li nga war a taxawe taxawe nga ko ba lépp mën na sëkk fa tabaarakallaahu kon ñoom ñoo ñu ngi leen sant ci loolu sëriñ bi itam ñu ngi leen ci sant bu baax a baax lii mooy li nga xam ne moo rafet ci eh, ak dëkk moo rafet yi itam ci ay kilifa yu yilif ña ñu yilif mën a jëflanteeg mu jëflante yu rafet kon loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax leen sant bu baax leen xamal ne itam cérémonie officielle bi ni ñu ko baaxoo defee incha allahu noonu rek lañ koy defee danañ ko defee fii ci place publique bi ah, bu ko defee bu ñu demee ba nga xam ne 17 heures jëm 18 heures ñuy waaj ba àgg foofu ba nga xam ne fi ñu koy tàmbalee jot na fekk na ñëpp teew délégation officielle bu président de la république deebal muy ay ministre ñu ñëw ànd ak gouverneur ànd ak préfet ak yi ñu taxaw taxawaay bu rafet sotteente fi ay xalaat te loolu lu am solo ci ci réew mi la ndax réew mi fii mu toll dafa aajo di toog di waxtaan comme ni ko président defee bari démb toog di waxtaan yooyu nag mu ngi génne ci lu mel ne cérémonie officielle yi ñu di ci wax li xalaat yi euh, autorités yi di ci wax ñoom it kilifa yi ñu jóge ci président de la république di wax ñoom it bëgg-bëggu président de la république muy message bu war a jàll lu am solo loo xam ne ëpp na sàggal ak na réewum waxtaan rek a ko yor leneen yoru ko te président démontré na ko bërki dem ba mu leer nañ xam ne lii mooy li war ci doxinu état mooy li war ci di doxinu réew moo xam ne dafa bëgg a jëm ci émergence il faut mu doxee nii kon loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen sant bu baax di ñaan itam cérémonie boobu doon boo xam ne dana gën a dolli njariñ dana yokk ci li nga xam ne président def na ko barki démb mu indi ay résultats yu am solo yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu